الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بك جلدي نيجي سنت سنو بروم ديكو باك ديكو كاني ديكو جارة كي ترم يسلي أكمل كانم يكوي ينغا خمني موم سنو بروم ريك موي كيكو جاكو noo ngi dénk sunu bopp di leen dénk ragal yàlla ak topp ko ci def ay ndigleem ak bàyyi ay tereem ndax loolu rek moo mën a tax nit ki mucc ci àdduna loolu it moo mën a tax nit ki mucc ci àllaaxira bu dajeeg sunu boroom sunu boroom day mooy kii dagana lépp lu laat te teey te baax ñeel ñi gëm yàlla ci wàllu wërsëg ñu koy jëfandikoo waaye lu sibuti tilim war a bu xaraam sunu borom xaraamal ko ci ñoom ñu koy moytandiku ndax loolu baaxul ci ñoom kon de sell ñeel na buur boobu nga xam ni ku kawe la waaye moo bind te yamale mu dogal te kenn ku ci nekk mu gindi la ca la nga war a dem nga dem ca moo génne ay gàncax ci suuf si gàncax yooyu yu ca bare bare bari xaw tuuti kon booba ñun mu baalaxa nga ni yépp nekk ay njariñ ñeel doomu aadama mu mën koo jariñoo ci seen ak dund walakin akthar annaasi laa yaalamuun bokk na ci yooyu garab nga xam ni mën naa jariñ doomu aadama ci dundam mooy li ñu xutba woon ci xutba ji weesu muy garab gu woyof googu nga xam ni yomb na ci ñu bare bari ba tax xamuñ sax njariñam muy laaj nga xam ni alquran sax tudd na ko ndax ca suuratul baqara ba banu israel yi wax sunu borom na leen wàcce ci dëkk bi ñu bayal seen bopp ginnaaw boo xam ni xéewale da doon bàyyi ko ci asamaan ya sunu borom yam doon lim boole na ca li nga xam ni moom mooy laaj ñetti junne at balaa juddug isa alayhi salaam nit ñi xam nañ ko ci kaw suuf di ko jëfandikoo kon loolu xam ngeen yàgg na grec yeeg égyptien yeeg yeneen xeet yu yàgg xam nañ leen ci di ko jëfandikoo am na ci ñoom ñoo xam ne sax xaabaabal nañ ba dañu wax ni ko ko am mën ngaa bañ a wuti geneen garab loolu nag dara waralu ko lu dul njariñ yañ ca gis moo tax boroom xam-xam yu yàgg ya dañ doon faral di wax ni laaj day lu ëpp juróom-ñaar fukki jàngoro mën na koo saafara ci doomu aadama te benn bokk ci ak morom ma loolu soo ko déggee kon lim lay wan mooy kon garab la gu bari ay njariñ xutba ji weesu def nañ ci lenn muy ñetteelu xutba ci silsila bii tey nekk ñeenteelu silsila ci ñeenteelu bind ci silsila boobu borom xam-xam yi nga xam dañuy gëstu ci wàllu faj dañuy wax ni laaj ak soble ñoo xaw a jegeyoo ci am njariñ donte am na yu ma ci waxoon nag ci njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xutba yi weesu ci ku ko lekk ñi nga xam dañuy gëstu ci wàllu faj soo demee ci réew mu mel ni Chine nga xam ni lii moom garab gi xam nañ ko lool waxtaan naa ci kenn ku ma nettali ci ñoom ni ñuy dundee fii ci réew mi ñu ni bañ nañ ko ba ñoom bu ñu fi ñëwee sax am fi ay liggéey lekk yi sew sewaan yi ñuy lekk sax dañ ko cay boole loolu firnde la bu lay wan ni ñoom xam nañ ko bu baax am nay jamono. feebar bu sonal doomu aadama yi ci cancer boo xam dafay am ci mbàqu doomu aadama ba lor fa ci ñoom ay mbindeef yu bari bi ñu defee ay gëstu def ay test dañoo gis ni ñi nga xam ne ñoom ñooy faral di jëfandikoo laaj lu bari feebar boobu ñoom la ëpp ni gën a néew lu mu leen di daal def nañ gëstu boobu ci ay nit yu bare bare lu mat ay 1700 personnes gëstu booba ñenn ñi nga xam ne suñu borom dogal na ñu jot caa génnee wéree ca e, jokkoo nañ ceeg lu mat téeméeri nit ak ñett ñoo xam ne kenn ku ci nekk joxe nga firnde bu wér a wér ci loolu di wane ni kon laajkat njariñam kon fi ñu ko foogee romb na ko su ko defee kon e, ay xeeti jëfandikukaay yoo xam ni nit mën na ko koo jëfandikoo dinañ ci indi lenn. donte balaa ma koy tudd na dinaa wax nit ñi ni léeg-léeg garab nit ki mën na koo jëfandikoo mu lor ko ndax la nga ca jël dafa ëpp mën nga koo jëfandikoo du la jariñ ndax la nga ca jël dafa tuuti kon ni nit ñiy def ci bu ñu feebaree ci dem ci ku xam dara ca la la leen dal mu tegtal leen ay tegtal ñu doog a faju loola it nag jàpp leen ni moo war a am ci lu mel nii dëgg la niñ ko diisalee warta diisee noonu waaye nit ko yombalee ba ku jóg rek dem defal sa bopp it warta yombee noonu tamit ndax nit ki mën na caa loroo ay seetlu ay borom yi xam-xam def nañ ko ci ay mbir yoo xam ne day gaar doomu aadama mën na caa jëfandikoo laaj suñu borom yàlla defal ko ca tawfiq bokk na ca yooya al imaamul xaswini imaam ju mag la ci bunt bii di borom xam day wax ni garabu laaj xob yi bu ko nit ki jëlee mu yéeyi ko ba mu mokk mu bàyyi bay tëdd bu ko neexee bu fekkee dafa wànnent wànnent wu metti mu mel ni ku ko tisngaloo loolu baax na ci wànnent kadalika lem tamit kadalika zeytuun muy huile d'olive ñett yooyu yëpp benn bu ci nekk baax na ci nit ki jëfandikoo ko bu fekkee wànnent daf koo sonal lool bu dee xobi laaj la jël nag mu mel ni ku ko tisngaloo diw ko ci bët yi xeyna moytandiku mu yegg ca biir donte ka bi moom dana yegg ca biir waaye nag loolu nga yey moom mu yeyit yi moom mën naa bañ yegg ca biir bët ya loola sunu borom mën na ko caa defal tawfiq xam ngeen ni jamono bi ñuy dund euh, yu bare bare bari ci seen yaram bu ñu seetloo lañ leen di faral di wax dañoom cholesterol ba tax na léeg-léeg suñ xeeti iwil yi ñuy jëfandikoo xam ngeen am na ci jeexintal bu rëy moo tax bu ngeen seetloo léeg-léeg yenn gurtu yi def diwlin sax dañ lay wax ni nangam ji kat am na cholestérol waaye nangam jii kat amu ko ndax feebar la boo xam ni mën naa lor doomu aadama bu fekkente nit ki dafa góor góorlu ba lu mel noonu dafa njort ne dafa nekk ci moom saa suy lekk rek moo xam añ la moo xam reer la doo ndoomas laaj su ndaw nag jarut muy bare ndoomas laaj su ndaw mu xar ko tucc tuccal ko ba mokk lekk ko. loola bokk na ci li koy dimbali ci lépp loo xam ma war a nekk cholestérol ci yaram wa loola mën na koo dindi waxoon naa leen nit ki buy jëfandikoo laaj bañ koo jëfandikoo ci xiif mooy li gën ndax su boobaa da cay loro léeg-léeg dina am ñuy jàmbat tuur ndox muy faral di metti loolu day faral di dal ay nit léeg-léeg feebar da koy waral am nay façon nag yu bari ndax léeg dina dal nit dal keneen te fekk kii li ko waral ba loolu gaar ko bokkut ak ka ca des la ko waral borom xam xam dañuy wax ni nit ki su jëloon dugub dugub ji dugub ji ñuy <clears throat> jëfandikoo nga sebet ko raxas ko ba mu set nga baxal ko soo ko baxalee ba mu bax nga fejar ñetti doom wala ñeenti doom ci laaj def ko ci ndox moom nga doon baxal muy ndoxum dugub bi mu ànd laaj yooyu moo xam da ko dëbb xam nu mën doon moom laaj bi su ko defee ndox moomu nit ki di ci naan bis bu nekk loolu bokk na ci li koy dimbali ba loola dañ su ko defee su mënee wut moo xam citron limon wala orange wala yooyu nga xam ne ay naan la la ca gën mooy nga wutal ko sa bopp bañ ko wuti ca yañ ci ay butéel ba noppi soo ko amee yooyee nga xamante ni ay naan la nga jël ko di ko faral di naan loolu bokk na ci liy dimbali nit ki su fekkente ni. Euh, jafe-jafe daf koo gaar ci wàllu tuur ndox am na ñu ciy jëfandikoo tamit xabatu sawda bu mokk bi nit ki jël ko di ko mëq loolu jigéen ji nga xam dañuy gis règle tamit muy metti dinañ ko faral di jëfandikoo donte am na yeneen garab yu ñu jëfandikoo ca loola yu dut yooyu jamono bi ñu toll di nga gis ñu baree bari daanaka loolu moom dafa bari sax te siiw lu mel ni rhumatisme nit ñi dañ koy jàmbat lu bare bare bare bari dafa sonal nit ñi lool. bokk na ca su fekkee gaar na nit ki du ñàkk xëy na benn barab ca tànk ba ca barab ca jëmm ja di metti su boobaa mën naa jël laaj ñeenti doom ba ñett ba juróom doom yu ndaw rek baax na mu tucc tuccal ko ba mu tas ba mokk mu def ko ci lem su ko defee ci lem jël kuddu xulba xulba bu bu bu puudar bi mu sotti ci mélange boobu su ko defaree donte xëy na comme li ma doon junj sànq nit ki mën na koo mën a bañ a defaral boppam waaye alhamdulilah yu mel nii yu bare bare bari am na ñoo xam ne xam nañ ca dara comme gaar bu demee ca ñooña mën nañ ko caa dimbali su ko defee loola bu ko jëlee daal di koy bëti def ko genre pat comme ab diw lay doon mu mel ni euh, karité gu ñu booleeg leneen ci misaal loola lay jël fa mu mooy metti ca tànk ba ca yàq ga ca ndëggu tànk ba fu mu mën a doon saa su demee ba tëdd jot rek daf ko koy daf ko cay diw bu ko ca diwee ba mu tooy rek mu bàyyi ko noonu bu xëyee su mu daal di koy dindi bu dee jàpp mu jàpp buy sangu mu sangu buy jàng mu jàng bokk na ci yi nga xam ni manees na koo jariñoo mooy léeg-léeg di nga gis nit ki soj soj mu metti di tisli ànd ak tisli wala sax même bu moom kadalik loolu boroom xam-xam yi dañuy wax ni su fekkonte ni dafa jël. Euh, laaj bi xam ngeen laaj am na huile loolu mu ngi am boo demee ci ñi xam ne dañuy faral di jaay ay garab boo seetloo huile laaj huile carotte huile daanaka loo soxla tey huile am na wala boo bari na yoo xam ne ay huile am na ca su boobaa nit ki day fexe saa bu lekkee ba noppi mu teg ci benn doomu laaj waaye nag muy jël huile laaj boobu di ko jëfandikoo di ko naan di ko booleeg limon maanaam da ci paccal limon lu tolloog benn kuddu rek. bu ko jëloon lu ndaw ci iwilu laaj bi paccal ci lu tolloog benn kudd ci limam mu di ko naan loola mën na koo dimbali waaye la ca gën a yéeme sax mooy nit ki suuroo ko fi mu nekk nii soj ak yu ni mel bu fekkee dafa sonal nit ki bu ànd ak tisli moo xam iwilu laaj bi nga am moo xam amoo ko laaj ba li nga am boo ko tëcc tëccalee ba mu tas nga def ko ci ndox mu tàng nga jël sér bu diis daal di ko cay muuroo loolu moom alhamdulilah yàlla def na digal nañ ko ay nit yu bare bare bari yoo xam ne bi ñu ko defee gis nañ ci tawfiix joo xam ne kéemtaanu suñu borom la kon loolu mën naa dimbali nit ki ci moo xam daf ko sonal rawatina mu ànd ak ay tisli ak yu ni mel wa kadalika lu mel noonu nit ki mën na koo jëfandikoo tamit ci bu fekkente ni soj mu ànd ak sëqët la xam ngeen soj léeg-léeg day ànd ak sëqët léeg-léeg mu ànd ak tisli léeg-léeg mu ànd ak yu bare bare bari coolool soosu nga xam ne mooy génn ci saxaar se mu di ko suuroo loola bokk na ci li koy dimbali ci euh, tawat jooju euh, doomu aadama yu bare bare xam ngeen ni biir comme nañ koy tuddee ay jaani biir ak wala ay saan ak yu kenn xamul danay faral di gaar doomu aadama kooku moom mag a xale ñoo ci bokk yam bu nit ki jëloon ñetti doomi laaj mu dëbb ko ba mokk def ko ci kaasu meew bu amee meewu nag baax na bu amee meewu gëléem baax na meew yooyu moo ca gën moo gën xeeti meew yeneen yi jëfandikoo lii tamit alhamdulilah diggalees na ko ay nit yu bari ñu jëfandikoo gis ci njariñ maanaam nit ki bu fekkoon dafa dem bay tëdd mu jël laaj fejar ko ñetti doom def ko ci kaasu meew su timis jotoon ci misaal nga def ko ci bàyyi ko mu yàbbi boo demee ba dara desut lu dul tëdd rek nga daal di koy naan naan meew moom bàyyi ko mu jàll fekk laaj bi yàbbi na ci meew bi loolu moom alhamdulilah am na ay lii yu bare bare yu ko jëfandikoo gis nañ ci ci ay njariñ loo xam ni gisuñ ko sax ci garab yu bare bare léeg-léeg di nga gis ay nit yoo xam ni ci seen bopp dañuy jàmbat tawat ju mel ni ay karaas wala kawar guy dagg wala xeeti feebar yi nga xam ne day mel ni ndoxum siti mu nekk ci bopp yooya yenn ci boroom xam-xam yi gëstu ci wàllu faj dañuy wax ni su jëloon lu mel ñetti doomi laaj bu ko neexee ñeent parce que laaj yi léeg-léeg mi ngi aju ci bu rëy rëy nag rëyut ndax léeg-léeg xam nga doom yi du ñu tolloo bu ko dëbbee ba mu mokk mu wut huile pomme xam ngeen pom tamit am na huile am ah euh, kii am euh, boo xam ne da huile boo xam ne dañ ko génnee ci pomme bu ko jëlee mu boole koog loolu nga xam moom la doon dëbb ci laaj bi da koy def ci butéel su ko defee ci butéel da koy teg fu am naaj mën na ko bàyyi une semaine bis bi ba mu dellu si waat loola su paree da koy jël. su demee bay tëdd lu mat une semaine ba léegi tamit mu koy diw ci bopp bi loolu bokk na ci li nga xam ne yàlla mën na koo defal tawfiq mu tàggale ko tawat jooja bokk na ci it yeneen i njëriñ bu jëloon lu mel ni fuddan nit ki bu jëloon bopp bi mu raxas ko ba mu set ut lu mel ni coton capp ko ci vinaigre tooy tooyal ko bopp bi ba mu tooy fekk bu fekkee kuñ mën a wat la mu watu bu paree tey ko ak fuddan comme ni jigéen ñi tayee donte fuddan ba nga koy tayee nag mooy gën a lóor du bokk comme ni ko jigéen ñi defee ci seen loxo yi loola incha allah yàlla mën naa def tawfiq xeeti ndoxu siti yooyu nga xam ni dafa fare biti mën naa dañ même fuddat moom nit ki mën na koo naan bu fekkee ndoxu siti bu sonal nit ki lool la bokk na ci jumtukaay yi ñu mën a jëfandikoo mooy fuddan bu set boo ko amee nga xam ne yaa ko wattal sa bopp daggal ko sa bopp lu mel noonu nga xam ni wóor na la poussière yeeg saleté yeeg amu ci nga jël ko saa boo ndekkee ba nopp jël ci benn kudd bu ndaw di ko naan loola mën naa dimbali nit ki ci xeeti ndoxsiti yi nga xamante ni mooy feeñ ci yaram ci bopp ci ay wee ci yeneen ak yeneen ak yeneen maa ngi fàttaliku ci at yu yàgg ya am na kuñ ko mës a digal koo xam dañ koo gis muy soox ma laaj ko lan mooy tax muy soox mu wan ma dagg-dagg bu metti bu nekk ci tànk bi di wane ni ndoxu siti moo ko ko sonal biñ ko digalee mu jël coton ak vinaigre jonj ci barab booba ba mu gajaf mu tegale ay fan di ko fuddan di naanaale fuddan bi alhamdulilah ca la teqale koog moom kon loola tamit wax dëgg yàlla ay njariñ la yu bari léeg-léeg doomu aadama danay faral di jëfandikoo ay comprimé yoo xam ni da koy may ak day ne tax mu nekk ku active di ku sawar wala boog mu sonn lool di jëfandikoo ay garab yoo xamante ni xëy da koo bëgg a wàcceel coono wala boog muy liggéey liggéey yoo xam ne xëy na laaju tayal laaj na nit ku yeewu ku ku ñor garaba gii goo xam ni moom it kadaalika maa ngi fàttaliku di ay jëfandikoo nañ ko waaye am na ay nit yu ko digal yu ko jëfandikoo am na ci kenn sax ku ma fàttaliku koo xam ne liggéey bu méttee métti la doon def waaye moom sax wax na ma ci ay kéemtaan yoo xamante nii man sax man xaw ko ci woon faf su fekkee nit ki jël na ñetti doom yi laaj wala ñeent ba juróom mu dëbb ko ba mu mokk boole ko tamaate bii ngeen di jëfandikoo muy tamaate doom bi mu nal ko mu pàcc paccal ko ba comme jigéen ñi ni ñu koy def bu koy nag nag da koy booleeg laaj bi su ko defee dana ko def ba nga xamante ni laaj bi ak tamaate ji yépp saf na ci ndox mi su boobaa mu daal di koy jël def ko ak naan jërut suukar jërut dara xëy na nag bu laaj ba ëppee dëgg-dëgg du neex loolu moom yàlla def na ci kéemtaan goo xam ne ci li nu fàttaliku daanaka amut kenn koo koy digal nag lu dul rek bu dikkee dana la ca wax lu bees tàq loo xam ne dafay mel day yokk ca la nga xamoon maanaam dana yokk doomu aadama bi cawarte waaye day wàcc li nekk ci yaram ci ay xeeti coono ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni eh, am na ko ci ay xeeti njariñ wa kadalika ñi nga xam dañuy faral di jàmbat bopp bopp buy metti nag xam na am na ay xeet ndax léeg bopp di mettee ci wetu kanam gi kooku am na lu koy waral léeg bop di metti ci digg bi am lu koy waral léeg di bop di méttee ci gannaaw am lu koy waral leg leg sax nit ki da daan wenn ngal wi rek lay sentir moy metti kon yoy yep di mat di xam la su ko defee nit ki man na japp ni nangam ji moko dal fek lolou du ko dal lene nako dal ndax xam ngeen ni am na bop yi metti yo xamni febar la am na bop yo xam yi metti yo xamanteni ni ay nelaw la am fet bop yo xam ne dong la la cay firne ma nit dana gis bopam boppam da ngay na la ko jóg rek affaire bi wer kon yoy yep timit yu mat di xam la Lolip, lepp li tax ñu ci insister moy nit ki xamni mbirum garab dafa xaw sensible timit nit ki mëna dégg luy muda rek mu dem defal bopam fekk lam def ko na ëpp waaye nag ma xamé nangam ji mom amna na njariñ ah niñ def ba xamni nangam ji amna na njariñ du ñak dinañ xam ay nit yo xamanteni ni xam nañ ci dara su ko defé ñoo ñama nañ la tekkal defal nangam jëlul tol nangam feebar sangam jëlul tol nangam wala sax ñoom ñu defaral la ko loolu moy lo ci gëna woor comme ni nga xamanteni seen garab yi ñuy jëfëndiko ci pharmacie yu ñu toll xam ngeen ni wut nit ki jekki-jekki rek xelam nek ci garab sangam rek mu dem jënd ko rek dal di ñew naan doon nam ko nexé loolu mom xel nanguwu ko wa kadhalika borom xam-xam yi dañuy wax ni ñi nga xam dañoo xala jëm mag manam mag juroom ben fukk juroom ñaar fukk jëm kaw bu ñuy faral di jël laaj di ko ak meewu gëléem meewu gëléem mo ci gën bu amut meewu nak man nako remplacer euh jël lu mat ñetti doomi laaj di ko fajar di ko ak meewu di ko jëfandikoo loola bokk na ci li leen di may kàttan bokk na ci li koy may it kadaalika am na benn borom xam-xam bu mag kenn ci ndox ndongoom bi day nettali dafa sentir ne kii daal dafa dafa dafa sawar lool juróom-ñett fukki atam jege ne mbaa mu teg sax waaye seetlu naa ne daal nam daan jàngalee ba léegi noonu lay jàngale nee benn bis mu daal di koy laaj ne ko waaw yow daf dafa am secret booy jëfandikoo mu ne ko lem day boo ko amee mu nekk lem bu baax. saaboo boo yeewoo rek nga am kuddu nga jëfandikoo ko ci te loolu moom firnde bi dëgg la parce que bokk na ci njariñi lem dañuy wax ni madahiru sayxuuxa da koy nëbb gaaw a bàyyeeku sidit yu gaaw a bañ gaaw a bejjaaw yaram lu gaaw a tas yooya lem da ciy dimbali nit ki loolu moom xamee xamee soon na ko ba kon mu ni ko loolu rek la xam ci lu doon jëfandikoo loolu bokk na ci li ko ci am kàttan googu mu am kàttan yi nga xam ne mënees na koo tudd ci loolu bari na lool bo delo ci ñi nga xam dañuy gëss ci walu fajj sax ku melni daawud antakiya ak ñeneen borom xam-xam yu yàgg ya ñen ci ñom da ngay gis dañuy wax ni bu ci jamono ji yàgg ja am ñu daan jëfëndiko laaj sax ngir xam jigéen ji ndax dana am doom du am doom maam lool nak dogal sun borom la way nag xam-xam doom adam mën na nat natable dañuy wax ni ci jamono ju yàgg jojo ñom nga xam ne xam ya medicine melagul ni mel ni mu mel ni. dañ doon def bu fekkente ni bëgg nañoo teste nit ki bëgg naa teste boppam dañuy wax ni jigéen ji bu jëlee doomam laaj mu dugal ko ci kanamam bu toogee ab diir bés foo nee gémmiñam rek xetu laaj di xeeñ ci gémmiñ gi xam nga jaarewu ci gémmiñ gi maanaam day wara ne kon kii jigéen la joo xam ne amut feebaru tëlee am doom waaye mu ne bu fekkee xetu laaj xeeñut rek dañuy jaar jàpp ne ah kii de kon yaakaaruñu mu nekk jigéen ju am doom loolu nag waxuñ ko ngir ni lu wér la waxuñ ko it ngir ni noonu lañ koy nattee déedéet dañ koy wax ngir nga xam ni ndekete nit ñi àggoon nañ ci di jëfandikoo laaj ci ay jub mbir yu baree bari soo bàyyee laajee nga jël yeneen garab yi nga xam ne mooy sax ci fi ñu dëkk ngi gis am rat am sexaw nebedaay xeeti garab ngeer subhaanallahil azim am na waaju ñu xam fii ci Thiès danaka febar yu bari da koy faj ci ngeer mi la koy fajee manam nun kon dafa am yu yu xewal yu bari bari yu sunu borom defal waaye daanaka xamnu ko bo seetloo garab yi neewuna garab goy laak fi ne bo xoolee lu melni sap sap li ci nek ci ay njëriñ sunu borom yalla rek moo ko xam amna ben suñu mbokk mo xamni ku jambar la ci walul la yëngatu mas no digal ni nit ki bu amone lu tolloog kaasa wit ci sap sap am sap sap bu ñu wër bam waw nga def ci kaasu wit tek nga jël habatu sawda bu pëndëx bi def ci kaasu wit tek nga bolé len ñom ñaar mélanger ko sa bo xeyé nga di ci jël kuddu bu ndaw bi ñu mu ni lim mëna remplacer ci lu doomu adama doon lek mu amal ko njariñ ci aw yaramam lim ci ay lim yu bare bare yo xamni boko jëfëndiko lek nga nangam lek nga nangam te lolu maa ko toxalé won ci ko xamni wax deug yàlla ku ñu xam la ku yàgg ci walu fajj nak ñu xam ko muy jàppale ay nit ci walu fajj wa kadalika yi nga xamanteni dañ koy faral di jëfëndiko mim la wax ci walu bop buy metti da ngay gis ñu bari dañ ci jëfëndiko suuro li nga xam moy xobi ngi gis wa kadalika reeni new wa kadalika garab yu bari yo xamanteni tay da nga leen di xam nit yi ñi ngi leen di jaay ci marché ba yéen ñi ngi leen di foye sax xamuñ leen faaf waaye njariñ yu bare bare bare bare suñu borom dëxëñ na ko ca bu ngeen laajee mag yi nga xam ne yàgg nañ ci réew mi dañ lay wax ni bu jëkkoon daanaka da ngay gis koo xamante nii boo ne nangam mool dal reeni nangam lay daal di wut dëgg la nag loolu tamit du jëfandiku goo xamante ni nit ki day def nu ko neexee nga xam ngeen ne ay reen ak sunguf jamono toll na foo xamante ni am na yu koy remplacer waaye ba léegi ñi nga xam ne xam nañ dosage bi nga xam ne moom lañ ci war a jëfandikoo la chaque ne njëriñ lam doon mi ngi koy am ba tey am na ay nit yoo xam ne suñu borom baaxee na leen ci wàllu faj xam nañ ci lu bare bare bare sooy jàmbat nangam ñun la defal nangam ba fin toll nii ñun xam nañ ay nit yoo xam ne boo nee nangam moom dal dañ naan la booleel nangam ak nangam soo ko boolee anam bañ la digalee yàlla mën na lay defal nga am tawfiq kon li ma bëgg a wax mooy wàllu wér-gu-yaram ci boppam bu ngeen fàttaliku ci xutba ju jëkk ja l'islam da ko jox importance bu rëy bokk na ci importance boobu xam ngeen ni wér-gu-yaram bu ko nit ki amul doo mën a jaamu yàlla te xam ngeen ni bu ko amul doo mën a liggéey yooyu ak yenen, ak yenen, ak yenen. ci jamono yonent bi sallallahu sallam wasallam ben way bu doon dund bu ñuy xaaris ibni kalda koku ku sun borom mayon la ci walu faj bo jange tere yu melni at-tubu nabawi ibn al-qayyim ak yenen tere bari wa nañ ci sahaba yak ñu dul sahaba yi ku ma sa febar daf daan dénkaane xeyna na yoy inshallah khutba ji danañ ko ni ab dir way bu soobee yalla ci ay jëmmi jamono dana continuer bokku na ci dénkaane yoy nga xamne ibn ibni kalda doon na ko dénkaane bu fekke da nga bëgg fan bu fekkee da nga fay bëgg a des sax laa da nga fay bëgg a des ba pare daal ne ah waaye des fi nag mënta nekk xanaa gudd fan la ñuy wax waaye des moom mënta nekk joxe ay ndénkaane yu am solo bokk na ci mooy boo lekkee guddi guddi bu lekk lu diis lu mel ni yàpp woo xam ne da ngay lekk rek tëdd ñaari bi loo mën a lekkit doxal ay jéego boo yëgee ni bëgg ngaa tuur ndox bul ko denc ndax acide la buy lakk demal yooyu buñ koy wax tey waxoon nañ ko ca démbi daaw ja maanaam nit ñiy jàngul wala ñu xamul xamul xamul rek kon lii da lay wan ni kon lislaam kat mboolem bànqaas yi wax na ca li nuy jeexale mooy xam ngeen ni ñu ngi toll ci jeexintalu at mi dëgg la ñu bare bare ci jeexintalu at mi sax dañuy xutba di wax ci euh, feet yi xew ak yu ni mel euh, jàpp naa ni jar na ko jaru ko jar na ko ndax nit ñi xam lan moo ci seen taxawaay jaru ko parce que at mi weesu di atum jullit ñi jàll la ba muy jàll wax nañ ca lañ ca war a wax at mii di jeex du wàññukaayu ay jullit mooy li ñuy natt ci jant bi xam ngeen ni ñaari nattukaay moo am benn bi ci jant bi benn bi ci weer bi moo tax ca suuratul kahfi bu ngeen fàttali ko bi ñu koy tafsir fii ci jàkka ji wala bisu fii kahfihim salaasa mi'atin sinin wasdaadu tisaa la ko waral mooy booy wàññi ci jant bi du bokk ak booy wàññi ci weer wi xam nga du ñu tolloo ndax weer dana dema léeg-léeg ba 31 kii léeg-léeg 29 rek mu jeex moo tax mu ne wala bisu fii kafin thalaasa miatin sinina am na ñetti téeméeri at ci xuntuma wasdaadu tisaan dolli nañ ci juróom bu fekkee ci wàññab weer wi la ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent la bu fekkee ci wàññab ah, bu fekkee ci wàññab jant bi la ñetti téeméeri at yu teg juróom-ñeent su fekkee ci wàññab weer wi weer wi la ñetti téeméer kese ca la yam muy thalaasa si sinina euh, jàpp naa ni feet yi ñu ciy def doy na ca rek nga xam ni ña koy def sax kenn ci seen kilifa wala kilifa gu mag nga jiite gis ngeen ko publiquement mu taxaw wax ni loolu sax amul cosaan ci seen diine loolu moom defe naa waxaluma leen ko ñoom ñoo ko waxal seen bopp kilifa gu mag nga jiite loola taxaw na ni feet yii ñu ciy defal sax amul cosaan te diine ja defe naa loola moom doy na sëkk ci nga laaj kon lu ci yoonu ab julit ñu nekkoon ay julit ñoom tabaske korite xeet yi nga xam moom nga am yow seen yoon néew ca ñoom jàpp naa ni sa yoon war nekk ca lee beneen bi ci des boo xamoon la ñuy feetu da nga xam ne musiba la ëpp na moo tax ibn alqayim rahimahullah ah ibn taymiya ci iqtidaau sirat almustaqim fi muxaalafati ashaabi aljahim téere la bu am solo wax na ci ci wàllu feet yi wax yu yaatu waaye am na ci kenn ci borom xam-xam yi dani nit ki sax boo ko ca mayee benn ab nen rek mu ne yàgg moo bokk yam ca la ngeen di feet te xam ngeen ni wax yu ëpp ya ñuy wax ci suñu borom subhanahu wa taala am na doom wax yu ëpp ya ñuy wax ci isa doomu suñu borom la nu mu tëddee xam nañ koy waxee ci yàlla jeeg nday jeeg xel mu sell mi xam nañ koy waxee yooyu seen wax yooyu ñuy wax wax yu ëpp boo seetloo am na relation yu rëy ak feet ga islam xamul foofu lu ñu fay feetu loolu nañ ci bàyyi xel jullit ñu xam ni ci wàññëpp weer wi ci la ñuy wàññi muharram safar rabiul ula rabiul thani jumaad al ula jumaad al thani rajab shaaban ramadan shawal dul qaada dul xijja at mi jeex mooy inna iddata shuhuri inda allah ithna ashara shahran fi kitabillah kon mbokk jullit yi doy na ci jullit ñi ñu doyloo la leen yàlla dénk ak ab yonenteem te it yu bare bare bare ñu ngi koy def waaye jaarut fa mu war a jaar ci xutba yére di ñëw ca kanam a kanam insha allah danañ leeral ci xutba isa ci jëmmi boppam ak wàccaatam ci kaw suuf ak wàccug mahdi ak wàccug masiixu dajjaal jàpp naa ne ci xutba yi Aïssa danañ ca gisee ni yu bare bare yoo xamante ni ñun ñu ngi ko fas mbir mi demeewut noona loola nag ak yaafus ak jullit moo ko waral waaye ñun sax nag kenn gënuñoo yey ci Aïssa ndax mooy yonent bi gën a gësës sunub yonent waaye bu dellu siwaatee ci kaw suuf it nag sa yaboo ngeen xam ne doon yonent waaye ab njiit lu baax te ragal yàlla borom xam-xam ci xeet wi lay bokk comme ni ko yonent bi waxee sallallahu alayhi ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الهم والغم والعجز والكسل ونعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم وانعم وزد وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين